asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nuyu naa bépp UDP 5 point agenda nuyu naa alhaji Lumukunda Maro Isenu Dabo nuyu naa anti aji yam seeka nuyu anti yaamu ndaw yaabo nuyu naa onko Ibrahima suma ñaari wujay anti Sali ak anti May Ndour nuyu naa leen yéen yëpp di leen gërëm di sant nuyu naa suma mbokki Gambian si ak ñu nekk UDP ñëpp nuyu naa leen nuyu naa waa Tallinding yëpp nuyu naa leen bu baax baax a baax di wax ne man la bébé UDP xam naa gëj ngeen maa dégg trop waaye school bi la waaye school tëj di ñaanal suma papa suma xarit alxaaji lu ma kunda maaru iseenu daabo di ko ñaanal yal na dunda ba dunda sàppi ko ndax lum ñu defal tey Gambia man mi boobu UDP dëgg de xale naa de waaye man xam na yëg naa yëpp lu Ousainou defal Gambia nii dafa sacrifice life am dem mile two ak ñoom anti na njaay ñu bàyyi foofu seen njaboot yi dem pour fight Gambia pour ñu am suñ buñ sonal suñ future bi waaye man mi bépp UDP incha allah ba Isainu man la koy waatal man góor laa even suñu lekka suuf sax ñu ànd ñu lekka suuf waaye man duma musa dem even su may dee sa maa UDP yuuri suma deret bi la nekk di daw te di la ñaanal yàlla nga dunda ba dunda sàppi la yàlla 2026 ñu jël toogu bi ba Ousseynou da nga sona si Gambien si trop danga nga bàyyi fële su la neexoo nga ne waaw man maa ngi amee doom maa ngi amee jabar man su ma dee ku la ñu toppatoo waaye faalew loolu loolu yëpp nga dem nga sacrifice sa life pour faytal Gambien si yow a very good citizen nga waaye Ousseynou danga xeex luy dëgga ba pare xam li nga xam te ne dafay dëgga nag di ko wax te ñu lay taxal di wax lu ñaaw sa der bi xamuñ ne kan mooy Baye Ousseynou ba suñ ñëwee UDP gis nga man bi ki ma duga UDP musuma dégg fu Baye Ousseynou saagee nit even doo nit su ko saagee sax kii bugga koo dem ak isa mu ne nañ bàyyi kii mooy jullit dëgga kii mooy nit ku baax dëgga waaye loo def rek yàlla na ko fay te di la ñaanal yàlla nga dunda ba dunda sàppi la yàlla su noon yi bu ñu mën a dara te incha allah lu ma leen di ñaan yéen suma mbokki UDP nu Momodou Sabally demee bu leen si wax dara nañ déglu suñ parti leader bi su waxee doog a wax parce que moom moo ñu jiite parce que moom mooy suñu baay soo gisee ne baay waxut am na reason boo xamante ne lu moo tax waxut kon nag buñ ko saaga buñ ko xas dëgg la nag defal na UDP man mi bépp UDP maa ngi ko gërëm bu baax oncle Momodou Sabally saabali mu ñu defaree di ko ñaanal di ko bu baax nañ déglu suñ parti leader bi te alhaji Lumukunda Maaro Isinu Daabo yàlla nga dunda ba dunda sàppi la yàlla sa noon yi buñ la mënal dara man ni béb yu di bi kontaan naa si yow bu baax parce que yow ñëpp nga emale ñëpp nga emale ba pare foo taxaw digga kese nga wax doo musa gaaruwaale te danga jàng xam luwaay te di ko dox danga sacrifice sa life pour Gambien si waaye man mi bépp UDP incha allah UDP laay nekka soo gisee lu tax ma dugga UDP parce que UDP góor leen ba Ousainu góor la dëgg kese lay wax te si dëgg lay dox moom di def laaxa laaxa di gaaruwaale musuma koo gis si moom kon nag alxaaji Lumukunda Maari Ousain Darboe yaay suma maam yaay suma papa te incha allah yàlla nga dunda ba dunda sàppi yàlla nga am loo bugga sa àdduna ba pare di la wax jërëjëf incha allah 2026 ba isin nañ la fay loo ñu taxawal si Gambien bi danga fay suñu right ba isin xam naa time yi su nekkoon ba léegi yaa ngi vice président billaay walaay talaay Gambie dañ koy jàppee Gambie mooy si dikki Afrique yi yëpp Gambie mooy daax ak dëkki Afrique yi yëpp waaye incha allah lu jot rek yomba yàlla lu tëj bunta tëj parenté lu ko olof yi dee waxee waaye yow yàlla ba isinu yal na la yàlla fay yal na la yàlla fay te yàlla sa mu noonu buñ la mun a dara man mi béb yu kontaan na bu baax si loo ma dimbalee suma éducation bi incha allah dinaa jàng bu baax a baax a baax a baax lu ma mun naa ko def pour bañ rek suñ noonu reetaañu jërë ngeen jëf ma la béb UDP ñu may ñaanal papa yal ko yàlla mu am 700 years seven hundred years mu dunda ba dunda sàppi ko jërë ngeen jëf asalaamaaleykum man la Baby Goody bi ma delluwaat di wax anti Aji Yam Secka ne happy birthday yàlla nga dunda ba dunda sàppi la yàlla loo bëgg yàlla defal la ko si barke sedna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kontaan neen si yéen bu baax kontaan naa si yow man mi Baby UDP parce que bu baax Ousseynou nekkoon mel tout yaa ngi nii taxaw nga UDP foo leen war a taxaw rek kon nag kontaan naa si yow bu baax a baax a baax dina leen ñaanal wér gu yaram ak gudd fan yàlla nga dunda bi dunda sàppi la jërëjëf suma yaay bu baax bi. asalaamaaleykum man la bébé UDP ma dellu si waat di ñaa wax ne suñ président bi his excellence it Adama Barrow man mi bébé UDP man laa ñaan ngir yàlla. taxi bul ko yokka wàññi ko dundabi ko seen na ni yaa ngi jooy dunda nga ñëwaat nga yokkaat tax soo yokkee tax ñun fu ñuy dem nga xam te ne baadoo lay mel ni comme man suñu añee duñ ndékki suñ ndékkee duñ añ dunda bi metti na de wàññi ñu taxi ñi yaa ngi jooytu dunda bi tali amut dunda seer na lopitaan yi amuñ garab yuut si ñu ngay dem baakuwee suñu àggee nga dippoot gaay seen parents yi ñu ngay jooy loolu noonu nga bëgg ñu yokkal leneen xanaa dag ñu bëgg a rey nag waxal man mi bi yu depuis ma ko ñaan ngir yàlla xoolal si man rek nga wàññi taxi yi nga yombal dunda bi nit ñi tali amut every time accident tali baa ngi ni xat yokkal loo tali oto bi oto yi ñu ngi bëri fii nii ba pare tali amut yaa ngi state house di noos rek ñun ñun baadoole ñu ngi fii nii di ñeneen ñi xalaat bu rëy bi ñeneen ñi suñ suñ tey suñ joxee seen doom yi añ ñu ngi xalaat lu ñuy def ba ñu jokkoo ñu reer dañ toog xalaat boobu noonu sax mun leen mun naa mun naa rey nit loolu moo leen day jox président ba pare soo demee si lopitaan bi doo am xaalis benn garab bu ndaw rek ñu la ay. 200 lu kenn xamut garab seer na soo demee si lopitaan bi nit mu feebar doo dee am sa foo dee tëdd dangaa lal sa mbokk yi indi basan ñu lala si suuf ñu teg la métti na de te nit ñi wéruñ xalaat bu bëri bii baruma laa ñaa ngir yàlla ak yonent bi wàññi price yi yow soo yokkee tax bi ñu Gambians yi ñu fu ñu dem sakatuma baadoo lay eh. yow yaa ngi foofu noonu State House di enjoy ba pare yoo xam nga lu United Democratic wax danga ko déggal lu leer nañ li liy développe bi loolu la gaay moo nekka suñ five point agenda bi moo nekka pour luy développe dëkk bi pour dëkk bi Gambia mu dem si kanam waaye fii nii xoolal Gambia bi léegi yow bi ki boo toogee National People's Party kenn xamut loo fi def baro bu dul nekk fii nii rek di pasar pasar suñ xaalis bi rek ñun day sonn trop dimbale ñu ngir yàlla ak yonent bi nga wàññi taxi soo yokkee taxi ñu fu ñuy dem du bi seen na garab amul si dëkk bii nii tali sa amut yut si liggéey amut fii nii soo demee liggéey doo am liggéey sana nekk yut si ñu ngi fii nii di sete rek suñ di dem baak di dee foofu noonu dimbale ñu ngir yàlla sonn neen trop ha baroo ñun den soona dimbale ñu ngir yàlla te nga yërëm ñu nga xam ne ñun baadoola lañ ñun amuñ doole dañ dee ñu fayal suñ doom yi ñu dem baak we suñ suma yaay gaay suñ fayalee suñ doom yi ñu dem baak we pour ñu dimbale gaay waaye nga dipoot gaay ñu dem rey seen boppa su nekkee kooku moom benn doom kese la am nag dafa métti si xol de ma laa naa ngir yàlla wàññi dunda bi nga defal ñu yoon xam nga lu tax ñu teg la fii nii pour luy jëmal suñu dëkk bi kanam te alhaji Lumukunda Maro Hissène Dabo bi ki Gambie bu mu toogee dafa daf doon fight human rights ba mu dem Mile Two ba suñu nit ñu ngee dee kon nag ñu laa ñaan ngir yàlla bu ñu tegal beneen préso bu ñu teg beneen préso wàññi taxi ñu ngee jooy taxi dafa seer dunda bi dafa métti nga bugg a yokkaat leneen pour nga liggéey lu baax xanaa yow soo yokkee taxi loolu moom moo nekk kay da pasar pasar seen xaalis bi xoolal ñaata yee soo fi toog rek ñu ngi bugg a dee na jumbo temps soo demee jumbo ñaar ñetta five dollars la waaye léegi jumbo ñetta ten dollars xoolal rek ñu sonna neen trop sakatuma ñu baadoo lay suñ suñu su suñ ndëkkee duñ añ suñ añee duñ reer li ñuy baadoo men comme man fii nii dimbale ñu ngir rek nga dimbale ñu suñu éducation bi school yi manqué na xale yi duñ dem school toog si kër bi di aydul rek dimbale ñu ngir yàlla nga defal ñu fii ñu am school yi doy lopitaan yi garab yi ñu doy ñu am marché suñ dunda bi muy yomba agriculture bi tam nga yokkal gaay doole waaye nit ñi sonal leen léegi jërë ngeen jëf kontaan naa jërë ngeen jëf ma labe bi UDP